salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu mbokk yi ñu gis nag taw démb bi am ay dégâts yu bëri yoo xamante ni def na ko fii ci biir Touba mu nekk nag loo xamante ni mbedd yi foo jaar rek da ngay gis lool waaye mbedd yu mag yi mën naa ni ndox mi mi ngi wàññeeku waaye quartier bi ñu nekk nii euh, mbokk yi xamante ni yéen a ngi seetaan seen chaîne IYAT TV tey jii nag dañu bëgg indil leen li nga xamante ni moom mooy jafe-jafe yi am fii ci ndox mi ni mu def fii ci biir dëkk bi sëñ bi man de xam naa ni du ma mën a dugg ci biir de waaye dama lay joxaj micro bi rek nga présenté wu na nga def maa ngi sant yàlla bu baax a baax sëñ Tuubaa. sëñ bi lan nga ñu mën a wax ci ndox mi. doy waar lool doy waar lool màggal gii kay màggal génn màggal gënu ko doy waar. ndax maanaam li nga xam ne jàpp nañ ne Touba def nañ ko ci wàllu ne moom la heureusement pour pour ndox mi gis ñu ci dara ndax mboolem ko ñëw fii wax joojoom jëf ji day weddi wax ja ndax maanaam ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci bërëb bii suñu machine lañ yor di ŋàcc di ñoo ŋàcc ŋàcc ŋàcc ba maanaam amatuñ sa xaalis benn xaalis mu ñu yor waaye ñi nga xam ne ñoo nekk fii di liggéey te defuñ fi dara loo xam ne kenn ku fi mës a ñëw dimbali ñu si si wàllu ndox mi amul ñun ñooy jël suñu xaalis suñu doole di ko di ko jëfe fii di ñàkk raakool baa ngi nii ngay seen mhm. kon ñoom li nga xam ne moom commune Touba di jëfandikoo fii ci Touba fii ci Tabalkana tam xam ne mu jàkkaarloo kër Sëñ Modou Kara Mbacké mii nga xam ne moo jàkkaarloo Sëñ Modou Kara di Daaru Manaan mhm. amul benn njariñ boo xam ne sama commune ko fii ci maanaam fii ci Daaru Manaan mhm. fii ci Daaru euh, fii si Tabalkana ndax fii ndox mi ni mel ñaaw na te amul kenn ko ñu fekk si son nañ fi torop nag kenn mënut a jaar fii aw yoonu sareet la woon boo xam ne nit ñi fi doon jaar di dox di dem di jëm ci jumaa ja waaye kenn mënu fee jaar kon buñ ne liggéey nañ liggéey googu dana waa jëf maanaam yéen ñi nga xam ne ñëw ngeen da ngeen xam ne loola ngeen loola ñu wax ñoom ba def ko loolu kër gee moom dafa mel ni dafa inondé kër Mara la kër kër mooy kër euh, kii kër sëñ Ibrahima Mbacke ren fii fi la daan màggale waaye màggal kër gee waa kër maam Thierno lañ ñoom mënu ñoo màggal kenn ku fi mën a màggal amul kon ñoom bu fekkee ne liggéey nañ ñoom ñooy lig ñoom fa nekk bu fekk ñoom ñoom ñoo am jàmm waaye ñun ne man fa ma nekk ñun am nañ jàmm waaye ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba yi dëkk fi di nekk fi di liggéey di fi tedd di fi màggal kenn ndax ndox mi demut dimbalewuñ ñu xooluñ ñu am na ñoo xam ne seen am ñoo xam dañuy dundee suñ Touba waaye liggéeyul suñ Touba dara fii Touba gi am nañu fi nekk ñoo xam ne nii dundee suñ dundee suñ Touba la ñuy def mais liggéeyul suñ Touba ndax ñun ñi nga xam am na loo xam ne jomm nañ ko def ndax rus nañ ko ndax luñ yor ñun addee suñ tubaab lañ koy def lépp lu ñu suñ doole suñ kàtt nag lépp suñ tubaab lañ koy jox léegi nag ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekk ne dañuy liggéey ku leen xool seen jëf jii ñu def ak lii nga xam ne moo xew xam ne ku leen xool xam ne liggéeyuñ maa ngi sant bu baax xam ne képp ko xool nam mel ak ni ko suñu borom bindee loolu neex mën nga ko def waaye lu lu laay def sa bopp ndax ak mbaaxam ak li ko suñ Tuubaa def ak yëmbane gi mu am ak baax gi mu képp ko xool mbaaxam googu suñu Muntaxa képp ko xool mbaaxam jëfandi di jëfandikoo lépp lu la neex ngir mbaax gi mbaax ak maanaam yé euh, taalibe gi mu doon ba loo nekk def ko Touba jàpp na nag ci am ndam doo ci am ndax ndax suñu Touba daa wax ne lépp lu ñu def boppam la ko def kenn defut kenn dara mm-hmm. léegi nag ñi nga xam ne ñoo dindi Touba nañ dem àddina seen kanam léegi nag ma dégg ñu ne jël nañ ay milliards yu bëri ay plan Orsec bi milliards yu bëri jox nañ ko nguur gi. 45 milliards juróom fukki milliards ñeent fukki milliards ak juróom ñu jël ko def ko ci mbënd mi ci biir Touba ba pare boo doxee biir Touba da ngay gis dëkk yu bëri daal yoon yi jàllul. ndax ndox loola gàccale si ñoom ñoom ñoo ko wax ndax ñoom bu ñu toogee ba xool programme bii nga xam ne moo xew Touba ak lii nga xam ne doomu aadama yëpp ñu màggal si am na ñu bëree bëri bëgg na ñëw ñooy lii tax ñëw mm-hmm. ndax koo xam ne gan la ci dëkk bi ñëw amul mbedd moom jaar amul taxi mu jël ngir mën a dem fenn maanaam fa mu jaar dim ndox nga mujj nga xam da ngay mujj jël say bagage daw wut foo làquti yi am na ñoo xam ne sax dañoo génn Tuubaa dem Mbàkke dem dem màggale ji am ndox ko nangu te kenn ku ñu ci mhm. kenn ku ñëw ne dimbale tam kon bu ñu ay milliards lañ ci def ñoom seen i wax jëf ji wedd na ko seen wax ñoom joxe ci ñu mhm. bu dee Tuubaa gi ku fi def 45 milliards wala ku fi def milliards dana feeñ waaye ku ñëw fii xam ne nañ loolu feeñu ndax loolu amut ndax ci mu naan ko maanaam saw la nag jaxandi saw mooy wax loo xam ne soob li nga wax dara dara bu ñu ko toppee ba ci biir dara du ci dëgg mm-hmm. loolu nag képp koo def sa bopp ko defoo ko kenn mm-hmm. ndax suñu tubaab moom li mu mm-hmm. ne wax rek moo fi nekk mooy daa ñoo xam ne dañuy dund tubaab mais jëriñoon tubaab dara loolu nag moo ne tubaab ji moo fi ne allah kulli an nag lu mu yàgg-yàgg lépp lu fi nit dana ma sa dañ bëggoon naa la laaj yan quartier ak yan quartier mooy quartier yoo xamante ni daal nit mënu fa dem ndax ndox mooy daaru mën naan fii daaru mën naan gii nit mënu faa dem ñaari puna nit mënu faa dugg tànkam daal foo bëggee dégg dëgg fenn fenn fu nit mën a dem amut mbaaree ndaamaatu kenn mënu faa dugg seret yi moom li gën a doy mooy seret yi yokk nañ seen pass bi nga xam ne la ñoon yokk ndax kenn ku nekk ñaari junni ngay fay bu fekkoon ne seret bu ñu fayoon ñaari junni ñaari junni yi ñu fay ñu ne ah def nañ ko Touba jii nii fii kat def lañ ko lañ faraadi kat doon nañ ñëw nañ juróom nañ fi nañ jënd nañ ko ci wàllu xam ne kat ñu noonu ñaari junni ndax amul benn njariñ boo xam ne si moom def nañ ko fii yoo xam ne si ñu ne ah ñoom kat la taxoon ñu doon fay sereet yi ñaari junni tey kat maanaam ko liggéey nañ ko fii ci Touba kon ñun dañu xam ne kon lépp lu ñuy liggéey xam ne nii liggéey tax wéet ci xeex mooy am na ñoo xam ne si jëw naa ko mooy duñ wax ndax na ñoo xam ne nii mënuñoo na ñoo xam ne nii mënuñu wax waaye man maa man damaa nekk nit ko xam ne maa ko lu may wax yàlla da nga tax may wax ndax man fi dëkk fi juddoo fi yoroo su ma sañoon Touba mooy dàq ci àdduna bi ndax doom man mii Touba Ca Kanam ak ñëpp ñu ngi liggéey waaye am na ñoo xam ne su ma comme ñu ngi naan ñu ngi liggéey waaye liggéey te ku ñëw fii xam ne liggéey dañuy dundee Touba waaye jëriñu Touba dara maa ngi sant bu baax a baax jërëjëf yàlla dañ fay nekk di dundee Touba waaye dundaluñu Touba mu nekk nag loo xamante ni wax dëgg yàlla yéeme na leen IYAT TV gis ngeen tey li nga xamante ne moom lañ leen indil ci màggal gi ndox mi bari na lool wax dëgg yàlla dem beeg dikk bi xaw na jafe ndax foo jaar rek da ngay gis mu jafe lool sareet yi fi ñu daan paas ñeent fukk léegi téeméer la fi nga daan paas téeméer ñaari téeméer la fi nga daan paas ñaari téeméer ñeenti téeméer la mbir yi metti na lool yenn yoon yi rek la nit ñi di mën a jaar di dox waaye wax dëgg yàlla ndox mi metti na lool kon nag nañu gaaw dimbale ñi nga xamante ne ñooy waa quartier bi dimbale leen jële fi ndox mi ngir màggal gi des na benn fan xanaa balaa màggal gi dinañ ko fi dindi